مجعاتك سلام على قبر الأمين المبارك أنت كنز من أحياء وآخر الأوالك سلام على فخر بنضر ومالك وعنة أيتام وبطل ممالك the mic. Salam alayhi khadim mutayyib. 0976 800 631 0976. Can I use it that works? One? This yeah, is an important yeah, announcement for anyone who wants health time. insurance, even if you miss the deadline. That's right. You know, Don't worry if you miss the deadline for open enrollment. Right now, you can get the health insurance you and your top insurance providers, even if you have oh, pre-existing conditions or no insurance at all. The Plus Benefits Health Insurance toll-free number has been extended to help anyone who wants health insurance coverage now, or anyone who just needs a better plan or a lower price. Did you miss the penalty deadline, a February, plans are available now, and in just minutes, we will help you find the right plan that's best for you and your budget. Call Plus Benefits Health Insurance now at 800 606 1841. The call is 100% free, and the help is real. You can finally get health insurance that's right for you. But hurry and get covered before it's too late. Call 800 606 1841 now to find the best plan oh That's 800 606 1841. 800 You are listening to WPAT 930 AM. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. <laughs> على متى بالدوي ويلك مالك قد اشتريتك بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yu tedd yi déglu ICFA rajo fii ci WPAT 930 AM di ñu déglu itam ci suñu website icfaonline.com icfaonline.com wala ci 616 597 10 30 616 597 1030 24/7 loolu nag bu ma nee am gannaaw ndimbalu yàlla mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America di jàkka yi di masjidul muhajirin wal fii ci Staten Island ca 740 Delafield Avenue Staten Island New York 10310 moo tax mu mën a am jàkka ji nag service yu bari lañ fi julli julliti àdduna rawatina julli julliti Amérique rawatina julliti New York five daily prayers muy julli juróom juma ak service ya ca topp zikar si àjjuma weekend programme si pour xale yi ak after school programme bu ñuy mën a defee seen homework di jàng tamit alquran arab ak islamic studies ànd ak lectures yu bëree bëri yu ngeen mën a bénéficier ci mbootaay gi di Islamic Cultural Foundation of America moo xam ngeen nekk sur place wala ngeen nekk à distance à travers la radio wala suñu chaîne télévision bi ci YouTube bi ñuy ñaan ñëpp ñu subscribe maanaam abonné ci ngir mën a bénéficier ci lectures ak xutba yiñ fay dugal yëpp dem leen youtube point com ngeen search ICFA TV fa TV ngeen mën a am lépp loo xam ne luy jógee ci mbootaay gi la te ànd ak njëriñ yii nag mbokk yi mënul am mukk gannaaw dibalu yàlla te jullit yi bokkuñu ci maanaam jàppalewuñu ku ci bëgg a jàpp na dem ci ICFA online dot com slash donate ICFA wala ngeen dem ci paypal dot me slash ikfa paypal me slash wala ngeen yónnee seen ndimbal ci one zero zero maanaam ci PO box bi one zero zero two two two Staten Island New York one wala ci adresse u ji nga xam ne tudd nañ ko mën ngeen ñëw ci seven one eight four four eight five two five two three four seven five nine six twenty thirty six ikfa ubbil na buntam képp koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa ولك ما لكي فقد اشتريتك سلام على قبر الأمير المبارك كان كنز يحيى ونصر ذلك سلام على فخر نضر ومالك وأغنية وإتام ومأوى الممالك سلام عليه من خديم متيم يمشي كل حاك وحالك فإن يكون جمالي بسالي روحي لداك الحبيب المبارك حضرة خير الخلق حضرة سيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المرسلين رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yu tedd yi ñuy déglu ci barab yu fëccantikoo moo xam ci biir New York wala ci biti moo xam ñi ñu déglu ci eh, fréquence rajo bi WPAT 930 AM wala ñi ñuy déglu ci ikfa online dot com wala ñi ñuy déglu à travers le téléphone wala sax ñi ñuy déglu ci réseaux euh, sociaux li ñuy seetaan ci facebook wala ñu ñuy seetaan ci suñu chaîne youtube ICFA TV ICFA TV ñaan suñu borom ci barke bés yu sell yile nga ne mooy bési xaj barke fan yu sell yile weer yu tedd yi le di weeru di weeru xaj alxaju ashuru maalumaat eh, tey rek am na suñu mbokk yu jóge fii isaan yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm ak ñi ci war a topp ñun ñëpp yàlla jàppandal ñu ñu mën a dem taxawee eh, ponk bu rëy bile di xaj ñi ko mosa def yàlla nañ ko defaat ñi ko mosa gula def yal na leen ko yàlla yombalal ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu opito yi wala sax ñu ngi ci kër yi te tawattee leen yàlla na yàlla fëgg bopp yi fëgg dënn yi ñi nga xam ne jaaxle moo wub seen bopp yàlla na wubbi bopp yi ku rek la ko jaaxal yal na yàlla dindi jaaxle ga ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquranul karim ci barke bés yu tedd yile waaw eh, yàlla nag eh, xéewalam dafa bari xam na ne du ñëpp ñoo mën xaji te yéene na ñëpp jàmm xam na ne ñi mën a aji itam du jamono yëpp lañ koy mën te bés bu ne yàlla yeneen nañu téeméeri junne jàmm waaw wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha moo tax ni mu xéewale ñi dem xaji e, la ci boole ñi ko mënut waaw tànn gi mu tànn bés yi nga xam ne mooy bési xaj wala ñooy bési xaj pour nit yi nekk fil aradil muqaddasa noonu la ko tànnale ñu mënta dem maanaa bés yi nga xam ne ñooy bési fukki fani Tabaski ñoom la yàlla def ñuy fukki fan yi gën ci at mi moo saa yu jublu si jullit bi war na koo waajal saa ak agse mu war ca profité yàlla ba mu gëñee ci suratul fajr ne wal fajri wa layaalin ashr eh, benn mufassir bu mag bu ñu tuddee ibnu kathir nee na wala yaalin ashir mooy fukki fani tabaski kon rëy na ba yàlla gën ci ba mu ne wa yadkuru smallahi fi ayaamin maalumat sayiduna abdullah ibnu abbas mu ne al ayaam al maalumat mooy fukki fani tabaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis joo ne Bukhari moo ñu ko indil mu ne mal amalu fi ayaamin afdalu min hadihi al ashar neena amul jëf ju nit mën a jëf ju ëpp doole jëf yi muy jëf ci fukki fani tabaski ñu ne ko ba ci jihaad mu ne ba ci jihaat xanaa ku génn ak boppam ak àllalam indiwaale wu ci dërëm oo tax ci beneen xadis xadis jàng ci eh, tabarani fi lmujamil kabiri yonentu sallallahu alayhi wa ne amul bés yu gën a màgg ca yàlla walla yu gën a sopp ca yàlla amul bés yu gën a màgg ca yàlla amul it bés yu yàlla gën a sopp fukki fan yi tabaski mu ne kon nag na ngeen ci góorgóorlu ba bëril ci laa ilaha illallah laa ilaha illallah na ngeen ci góorgóorlu ba bëril ci allahu akbar allahu akbar na ngeen ci góorgóorlu ba baril ci alhamdulillah alhamdulillah loolu la yonentu sallallahu alayhi wasallam wax ngeen baal ñu de xam naa duñu mën a ubbi ligne bi léegi naa ci kanam waaw euh, ci deux cent douze deux cent dix quatre quatre-vingt-seize quatre-vingt-quinze waaye ci kanam yàlla maye waxtu am du dëgg na yàlla maye waxtu te yombal la ñu suñu waaxir ñu suñu baati maanaam eh, bës yi nga xam ne ñu bari seen yitte mooy wut yére bu bees sañse sañse xam nga sañse baax na ci tabaski waaye bés yooyu bu jàmbi fàtte ne mooy bés yi gën ci at mi sayiduna said ibnu jubair rahmatullahi tabaraka wa taala wax nañ ne su fukki fanit tëbaski jotaan ni mu daan farloo dina tollu dina dina dina yëkkatiku ak coono jamuy daj dana bari ba dootu ko mën àttan waaw ku tol ni Saïd ibnu Jubair nga xam ne min saadati taabiin bu dul fukki fani tabaski rek la muy def kenn mënu ko waaye bu fukki fani tabaski ñëwee ah, dana def loo xam ne moom ci boppam dootu ko attanati ndax xam gi mu xam yiw gi nekk ci fukki fani tabaski Seydina Abdullahi ibnu Hajar eh, eh, Seydina eh, naka la tuddati Ali ibnu xajarul asqalaani borom fatxul baari sharxu e, saxiixil buxaari wax na ne li tax fukki fani tabaski gën fukki fan yëpp évidemment yàlla rek sax moo xam waaye e, nee na def na ceetlu moom def na ceetlu ba seetlu ne li tax fukki fan it Tabaski gën mooy ndeyu jaamu yàlla yépp dañ ci daje julli woor sadaxe aj te ndeyu jaamu yàlla yi amul ci yeneen bés yu mu daje weeru koor lu muy tedd tedd mënuloo ca aj ah, woor rek nga ca mën def ak ya ca des ah, julli lu muy tedd tedd du jamono yépp nga mën a julli du jamono yépp nga mën a julli waaye jamono yii nag mën nga ci boole xeeti jaamu yàlla yi yëpp ah yonantu alayhi wa yem ci digale yépp muy saraxe yaag koor yaag yokk jaamu yàlla yi sayiduna ibnu xajar na amul ci yeneen bés waaw moo tax ñu ne eh, dëgg la fukki fan fukki fan yi weeru koor fukki fan yu mujj am na daraja waaye bu ñu ko comparé fukki fan yi fukki fan yee ko gën waaw waaw ñu ne nag nan lañoo ñoo atte bon ngëneelu laylatul qadr ñu kon dañuy wax ni fukki guddi yi mujj ci koor ñoo gën ci guddi fukki fan yi njëkk ci tabaski ñoo gën ci fan yi waaw ana bon luñ ca sopp jaam bi mu def ko maanaa eh, mbokk yi jàmm jamono bu nekk na xam ne waxtu la am xaq ci moom mu jéem a seet xaqi waxtu yooya mu mu def ko ci waaye dañu toll ci jamono bu nga xam ne daa nekki eh, waxante lu bon xasante ñàkkante kes ak jaayante affaire moo gën a bari waaw ngi koy wax fan yi rek am ku may interpellé ci yenn débat religieux yi am eh, senegal nga gis ne bés bu nekk au lieu ñu laayante biir waaye ñi ñu war a déglu ci seen bopp ñooy xasante waaw ñi ñu war a déglu ci seen bopp ñooy xasante waaw yàkkamti wuñu lu dut porox ndoll bu ñu am pour xas nit e, bu ko defee it population yi ku amul certificat d'étude bëgg a juger boroom Ah, master's degree wala ab docteur wala professeur d'université xam nga du sotti eh, beneen bi ci desit mooy waxukaay yi dañu bari ba ku neex rek nga jël télévision wala rajo wax lala neex na ko dégg ci benn waxtaankat wala na ko liir fenn rek nga wax ko te dañu toll ci jamono bu nga xam ne xam-xam gën na yomb xam-xam gën na yomb amul benn vann ci fununul ilm yoo xam ni boroom xam-xami sharia taxawee nañ ko wala boroom xam-xami lislaam lu dul ni lépp available na lépp nag ak ku tayal nag yaa tayal boo defee kiy wax ci lislaam mu approfondir wax naa bi ci addu ci fan yii la xew eh, ci ku woy juram àgg ci jigéen ndax kooku mën na ko tëkk ma ma leen du débat tey débat bu nga xam ne am na junniyaat ak nangami téeméeri at xam nga bu ñuy toog di ko soog a waxe wala muy jaaxal nit yi loolu mooy wane ni sori nañu toppatoo suñu diine sori nañ ko nag eh, bu ko defee ñi ciy wax ñu am yaatu dënn bañ a saagawante bañ a xasante waaye ku nekk indi la nga xam ku nekk indi la nga xam waaw eh, waaye du lu bees boroom xam-xam yi yàgg nañ ci wax en détail même en grand détail ku mel na borom eh, le philosophe comment il s'appelle encore Ibn Rushd borom bidaayatul mujtahid indi na ko ci troisième volume wax ci détails yëpp la ca Abu Hanifa te wax la ca Malik wax ak fañ ko jëlee waaw fañ ko jëlee eh, eh, am na ñu ma dégg nag ñu ne ñoom ñaar ñëpp ci aaya ba la ñu dépendre wante loolu demeewul noonu aaya ba moom sëy la tudd waaye ñëw araamal dañoo xiyaas njaaloo ci sëy waaye dépendruñ ci aaya ba kenn fi réewut ko lu dul sëy loolu lu mët a bàyyi xel la tey jii boo xooloon tous les Corans traduits ci gis lu dul wala tankixu do not marry lang bu mënta doon nag bu leen takk ñi seen bàyyi takkoon lañ koy firee ñëpp loolu it ñu bàyyi ci xel ndax wuute su amee it du tax nga jël bu la neex loolu war nañ ci bàyyi xel bu fekkee ne amuloo accès pour xam ñoom ñaar ñi wuutee ku nekk fa mu ko teg bu fekkee amuloo niveau bopp nga jël bi dal sa xel waaye du bu la neex kat waaye nag bu dee ab jàngalekat nga war nga fexe nga fexe ba xam Malik li mu wax ci Muwatta fan la ko teg nga fexe ba li Abu Xanifa te wax fan la ko teg li Sawri yu wax fan la ko teg waaw Malik Rabiatoy sëriñam loolu la wax Zuhri yooyu sëriñam loolu la wax Abdullah Abbas seen sëriñ loolu la wax fan lañ ko teg ñu ngi ko teg ci laay ci wala tankixu ma nakaxa abaukum min nisa ñeneen ñi xiyaasi njaaloo ci sëy amuñu tegtal nag ak seen xam-xam lu mu rëy rëy waaw ku toll ni Abu Hanifa te kenn xamut ku mel ni Abu Hanifa te ci xam-xam waaye nag ismatu yonentu rek ko moom waaw jamono bii ñu toll nag kuy waxtaan ci xam-xam war nga fexe nga dajale ngir yi seen opinion waaye nga lu ba xam fan lañu ñu loola ci alquran ak ci hadis jéem a seet ndax mën nañ ko dëppale wala mën nañ koo dëppale buñ ko mënul dëppale nga lëng seet ba gën a lëng nga joxe ko seet ba gën a lëng nga joxe ko maanaam ba gën a jub waaw am na sax ku ma dégg euh, muy def arbitrage ne dafa am ñaari masala masala charia ak masala fiqiya pour wax la nit ñi tamit masala charia ak masala fiqiya loolu ku ko mos a dégg ne ne bokkut fiqhu ci biir charia la bokk da nga naan masala aqadiya ak masala fiqiya waaye ñaari masala bi amut mu ne masala charia kenn wuutewu ci loolu amut bépp masala fiqiya masala charia la amut amut différence dëgg la charia aqida ak lépp ci la dugg waaye fiq ci la dug waaye lii mooy masala charia lii mooy masala fiqiya xoolal wax yooyu ah mu ne bu fekkee ne julli la kenn du wax ne tisbaar ñaari rakka la ñëpp d'accord nañ ne ñeenti rakka la ndax masala charia la ñëpp d'accord nañ ne ñeenti rakka la waaye tisbaar masala fiqiya la amul téere fiq booy ubbi te doo ko fekk ñuy jàngale julli tisbaar amut yooyu eh, tamit wax dëgg yàlla cawar cawar gu ëpp it baaxut ah cawar gu ëpp baaxut tey daal amul benn téere du Bukhari du Muslim du Muwatta du Mudawwana du téere Abu Yusuf al Qadi wala Muhammad ibn al Hasan al amul benn téere lu dut available xam-xam yëpp a ku ci bëgg am sawar rek am ci te nag eh, dafa am qaida bu ñuy tuddee al aslu baqaau ma kaana am na xam-xam sax bu ñuy tuddee qawaid fiqiya waaw xam-xam la bu nga xam ne ñu bari dañ koy jaawale ak al ashbahu wa nadairu al fiqiya te du benn dëgg la ñu njëkk ñi dañ daan boolante tur bi dugal yépp ci biir téere bi waaye dem nañ ba xam-xam euh, ba ñu tàqale ko du benn qaaid al qawaidu alfiqhiya du benn ak al nadairu alfiqhiya du benn ak al ashbah alfiqhiya du benn ak al furuq alfiqhiya du benn ak al dawabit alfiqhiya parce que daabit fiqhi ci benn benn atte rek lay wax maanaam ci tahaara waaye qaaida fiqhiya nag moom aglabiya la ci atte yëpp daanaka lay wax ya ca gën a am solo mooy juróom yi al umuru bi maqasidiha al yaqinu la yazulu bi shik ad dararu yuzalu al mashaqatu tajlibu taysir ak al aadatu muhakkama waaw al yaqinu la yazulu bi shak lii wóor mooy lii sharia wax mi ngi nii lu wóor la leneen lu yeggut ci wóor lu ko dindi waxuma laak nag lu amut comme alquran dafa ne lii la ba mu waxee ya mu wax yëpp mu ne wa uxilla lakum maa waraa daalikum ya ca topp yëpp baax na mën ngeen ci takk keneen lu muy indi it fiig ci yaqin bile maanaam du texte alquran du xadis nabawi dañ koy dañ koy dañ koy teg te xadis nabawi du folli alquran mukk du ko folli waaw folli mukk mën na xaasal nag mën na xaasal ndax yonantu bi yàlla waxee yi dañ den na bintul xaalati moo boobaa mu nekk bayaan lay doon waaw waaye e, bu fekkee dañ ne baat bi mën na firi lii ci langue tax ñu jël ko kon salaatu ci boppam kenn dootul julleeti waaw sala baatu sala firiwul julli comme niñ koy defee nii ci luxal arabi mukk waaw as ñaan lay firi kese ñaan lay firi wa salli alayhim ñaanal leen ñaan lay firi waaye yàlla bu ne wa aqimu salaata fireetul ñaan waaw boobaa dañuy soxla yonentu sallallahu alayhi wasallam wax ñu lan la yàlla julli julli jublu ci salaatu mu wan ñu ne ah salaatu nag amalun maxsuusatun waaw afaalun maxsuusatun wa aqwalun maxsuusatun miftaaxuha takbiru wa xitaamuha assalaam wala taslim loolay julli ay jëfla yuñ xam ak i wax yuñ xam yu ñuy ubbee allahu akbar di ko tëjee assalaamu aleykum yooyu booy jàng usulul fiq danaan la wax loolu waaw baat dana ñëw ci alquran mën a firi lii lu mel ni alqaru boobaa dafay soxla nag ñu leeral ndax xar u yàlla tudd na ko ci baqara dana firi laab dana firi gis ba rek waaw kon xuru boobu yàlla di wax na lay firi borom xam-xam yi càmbar yooyu ah bu ca nit ki eh, yitteem yeggut su yebo rek di ah, wala boog mu jéem a yaatal eh, xam-xamam dafay tane nag ah. waaye eh, werante werante dóorante kaas yàqante xaaw yoante sutura bakkan rek bakkan bakkan bakkan bakkan rek déglu naa alxaaji Bachiru Ndaw eh, bu daaru salaam fan yi yal yàlla yokk fanam ak wéram waaw wax mos na ma wax ni may eh, eh, ñetti yoon la mos a ñëw ndakaaru wóor gu baax ndeysaan te daaru salaam mu ne ma ñetti yoon laa mos a ñëw bi may dem màkk ak bi sama bay alxaaji Omar Ndaw feebare ma ñëw seeti ko ak bi alxaaji Muntaqa feebare ma ñëw seeti ko mu ne ma ñetti yoon yooyu laa ma sa Dakar waaw góor gu tabaarakallah naa ko fan yële mu ne amul kenn kenn ku bañ mbokkam ngir julli ci ñun amul kenn ku bañ mbokkam ngir tisbaar ki ñuy julli wala tàkkusaan gi mu julli wala timis gi mu julli wala géye gi nee na alal am am ak e, position ak bakkan rek bañante gi yëpp loolu bakkan rek bakkan bakkan bakkan bakkan rek waaw yàqante bi yëpp bakkan la yàlla ci yàlla boole nekk rek bëgg nga ñu ne yaa am xam-xam ku nekk bëgg nga ñu ne yaa am daraja ku nekk bëgg nga ñu ne yaa baax waaw waaw madxu nañ ci yàlla boole musal te defaral ñu suñu zaahir defaral suñu baatin boo defee au lieu ñuy yàqante ah nañ jéem a profité ci waxtu yi nga xam ne ñoom la suñu borom jox ñu war ko nekk fii ci àdduna bi waxtu yooyu nañ ci profité wax nañ ci profité du dëkk nañ profité eh, waxtu wu nekk war nañ ci profité rawatina nag su waxtu wa amee ngëneel ngëneel bu spécifique waaw sama borom dafa jox bés ngëneel yu spécifique yonentu it jàngal ñu ci yan lañ ci war a def jàngal nañu lan lañu war a def en général rawatina bu dee jamono yu mel ne comme wax nañu ne nañ ci bëril jaamu yàlla boo defee nga organiser nga xam ne waxtu nu mu gën a baaxee jaamu yo da cey dañ leen cey ful bokk na ci yi ñu sopp ci bés yi le eh, at tabkiiru ila al faraid wal ikthaaru min an nawafil waaw loo daan dem jàkka ji xeeb ko boo daan dem five minutes balaa ñoo julli dem fa léegi trente minutes balaa ñoo julli boo paree loo ci mën a yokk ci naawe leen nga nga ko ci yonentu waxoon na ne alayka bi kathrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafaaka ilayhi biha daraja wa xatta anka biha xatia maa ngi laa maa ngi laa dénk nga bëril looy sujjootal sa borom ndax amul benn sujjoot booy sujjoot nee na lu dul ne yàlla dana la ci yëgal yëgatil daraja sippil la ca ñaawteef waaw ñaareel ba ci yi ñu mën a jëf ci fukki fan yu tabaski mooy woor ndax dafa bëgg ba bokk ci jëf yu baax yi ba pare eh, eh, yonantu sallallahu alayhi wa sallam am ca am ca gàtt nga gàtt nga am ca gàtt nga waaw kenn ci soxnaam bi wax na ne xadis jàng ci ahmad mi ngi ci abu daawud mi ngi ci ne na kenn ci soxna wax na ne sallallahu alayhi wa sallam kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yasuumu wa yowma ashura wa thalathata ayaami min kulli shahr mu ne ñett yi yonentu daan na ko def woor juróom-ñeenti fan yi tabaski xam nga bu ñu ne fukki fan dañuy matele matale rek waaye fokk ñu sàmm wante ne juróom-ñeent lañ ci jublu ndax basu su tabaski kenn du ko woor mu ne yonentu woor juróom-ñeenti fan tabaski ak ñetti fan wu nekk waaw juróom bësu tam xarit muy fukkeelu fanu weeru muharram ak ñetti fan ci weer wu nekk nee na daf ko daan def moo tax imam nawawi bañ ko laaje mu ne innahu mustahabun istihbaban shadidan woor ci juróom ñeenti xani tabaski mu ne sopp nañ ko sop gu taratar waaw waaw beneen ci yi ñu sopp mooy yonentu yaxal ci xadis ja muy at takbiru wa tahlilu wa tahmid التكبير والتهليل والتحميد bari lu ñuy wax allahu akbar allahu akbar bari lu ñuy wax tahlil laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah bari lu ñuy wax alhamdulillah alhamdulillah ndax yonentu mu ne fa akiroo fiihinna min altahlili waltakbiri waltaxmidi imam buxaari rahmatullah alayhi nee na sayiduna abdullah ibnu umar ak sayiduna abu hurayrata na yàlla dolli leen e, ngër dañ daan génn di dem ci marché yi ci fukki fani tabaski daanuñ toog seen ruqu rek mais nee na dañ daan dem ci marché yi waaw di kabbar ca kaw ñëpp di kabbar topp ci seen ginnaaw bu ñu kabaree nit ñi kabar tey nag buñ gisee kuy zikar am ñuy zikaraan nag moom sañu ne bidaa bidaa pour wax la ne la tamit ah mu ngoog wallahu mustaan <laughs> nañu yàlla dimbale ya rabbi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquranul karim ndeysaan bu nekkaan ca minan dañ koy dégg muy kabar ñëpp di déggoo gannaaw julli yëpp bu nee ci lalam bu nee ca tàntam bu nee ca uh, tooguwaayam ak buy dox bés yooyu yëpp foo seeni Abdullah ibnu Omar ma kabar ma nga zikkar zikkar zikkar zikkar waaye buñ ku koy def ñu ne kii mbaa jàmm <laughs> te yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne tuddal yàlla ba eh, nit foog ne danga dof ba naafeq yi ne da ngay ku nekk di nga toog yaa ngi woy woy bu la neex kenn du la wax dara tudd yàlla ñaari yoon ñetti yoon ñu indi la problème seetal loolu loolu tamit manduwut ah manduwut de ah sunna la su nga xam ne ah daanaka ñëpp ko gàddaay ku nekk yaa ngi wut xarum tabaski xam nga xarum tabaski dafa di dafa di wareef sunna mu akkada la ñi ne sax waajiba la waaw waaye nag eh, yeggut ci def loo mënut nag waaw da gis ñoo xam ne ngay wut sa xaru tabaski soxna si ne la li nga ma indil mu mel ni indilatoo ko eh, yàlla soxna si nga koy indil léegi te pourtant yow kese boo rayee xar doy na pour sa waa kër yëpp waaw yonent ba mu rayee dafa ne yàlla lii maa ngi ko reyal sama bopp ak képp ko amul lum tabaskeeti ci sama xeet waaw bu dee sax mën ngeen bokk juróom-ñaari borom kër ngeen rey benn nag sax baax na juróom-ñaari borom kër ñu bokk rey benn nag dafay baax waaw baax waaye wutum xarmi ak wutum xotti ak wutum luñ def ci ci nii bésu tabaski bu mu yàq zikar si zikar na bu mu ko yàq parce que yiw warul yàq yiw waaw waaw ah, yiw warul yàq yiw waru ko yàq beneen bi ci des mooy siyaamu yawmi arafat maanaam juróom-ñeenti fan yi ñu wax ne nga woor ko daf ci am fan bu nga xam ne moo ci ëpp doole bañ ko laajee yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ahtasibu ala allahi an yukafira sanata allati qablahu wa sanata allati baadahu waaw maa ngi xaar ci yàlla mu kafaara bakkaari at mi jiitu bésu bi nga woor ak bakkaari at mi ci topp seetal loolu xadis jàng ci muslim woor benn bés mu kafara at mi ko jiitu kafaara at mi ca topp loolu jar na lu nekk jar na lu nekk moo tax eh, bës boobu nga xam ne mooy eh, bés bi gën a am solo ci xaj ñu ne ajkat bi yow soxlawuloo ko ajkat bi kenn so woorlawut ko bésu adam waaye ki ajiwul te ñu bëgg mu am li ajkat bi am yàlla sarax ko bésu adam ba tax nañu nañu góorgóorlu ci juróom-ñeent yi rawatina bésu araf waaw rawatina bésu araf bi ci desit bésu tabaski ngëneel yi ca nekk ah léeg-léeg mbóosóor mi mooy tax duñ ko duñ ko jëriñoo mooy tax duñ ko profité te ngëneel yu bare bare nag ñoo ca nekk waaw bésu araf bésu tabaski bésu tabaski ndax mooy bés bi gën ci at mi alal itlaq am na ñu wax bésu arafa waaye bésu tabaski le xadis ja yaxal waaw xayrul ayaami inda allahi yowmu naxar wa huwa yowmul xajjil akbar loolu la yonent bi wax bés bi gën ci bés yi fa yàlla waxuma fa yénde xam nga ngëneel moom ce ce ce ce yàlla nekk wal fadlu inda ilahi naasi xaw ma ku ko waxati eh, alimu Mauritania ba xam naa ni ñim doon waxal am nañu lëf ci Sénégal waaw ah, bu se sëriñ weer weer la pour yow kële it sëriñam weer la pour moom ku nekk ci yéen yaa ngi naan sa sëriñay weeru Badr te ngëneel moom yàlla rek ak xam waaw bu ñu demee ca moom nag la lépp di leer waaw in kaana cheikhukumu fi ra'yikum qamaran fa inna cheikhahumu fi ra'yihim qamaru wa kullukum yaddaci fi cheikhihi qamara walfadlu inda ilahi nnas waaw waaw waaye yonentu mu ne bés bi gën fa yàlla bi gën a màgg ci gis-gisu suñu borom subhanahu wa taala te moom gis-gisam rek a baax mooy bësu loj bi te mooy bësu aj gu mag gi waaw ca suratu tawba yàlla tudd na ko baraatum min allahi wa rasuli ila alladina ahadtum yàlla eh, jeexalee Euh, tappale yi nga xam ne mushrikin yi ñu mën jëflante tappale bi doon jëflante ak yonent ca la jeexalee it seen accès ca euh, kaaba ga waaw wa adhanum min allahi wa rasuli yàlla moo yonent ma ngi joxe announcement di ko jox nit ñi naas kañ yowmal xajjil akbar anna allaha bariun min al mushrikin wa rasulahu baax na wa rasuluhu baax na waaye bul maas ci suuf de waaw yonentu nee na inna acdama al ayaami inda allahi yowmu naxri humma yowmu alqar yowmu alqar na mooy bés ya ñoo sax ca mina waaw waaw am na ñu ne weeru xoor weeru xoor maana naka la tuddati bésu arafa moo gën parce que woor ga la ca nekk ci ngën waaye ah yonent de moo tudd waaye arafa it am na solo ndax bu woor benn bés mu kafaara ñaari at waaw bés la bu nga xam ne moom arafa la ca yàlla di goreel ci jaam du ko ci beneen bës bës la bu nga xam ne moom arafa yàlla dafay jege jaam ñi ci na mu yellee ci moom di sax ci kanam malaakaam yi waaw ay xadis ji lale la wax waaw waaw kon nag yile eh, yiw su fekkee ne am na ci eh, ay bés te yàlla indi ñu ci bu amee ci bërëb te yàlla yóbbu fa dañ ci góorgóor ñu ko tuddee mawaasimul xiir soo toogee fi ne danga bëgg kër nga toog rek dégg ñu ne ah, am na salon d'habitat nga daw xool yan diir ñoo gën a intéressant nga bëgg yére ñu ne ah, am na marché luuma luuma yére wala am na sales ci compagnie yiy jaay yére wala yiy jaay téléphone wala yuy jaay la nga soxla nga daw jamono yii nag mbokk yi eh, jamono promotion la jamono sales la nag ñu góorgóorlu ci waaw ñu góorgóorlu ci eh, te comme sama borom dafa bëgg ndab lu muy def dara mu fekk mu set nañ ko préparer sukk ci ronam rek ne ko ñooy takk nañu rip fóot ñu ñu set waaw tub na tub naa ilay waaw fexe ba luñ doon def ci lu jubati ñu buddeeku ci fexe ba luñ doon gàttañ lu ci mbaax ñu góorgóorlu ci tuub tub gu barke démb bi ñoo waxtaan ci euh, guddi Cheikh Seydi Ahmed Tijani radiallahu anhu fële ca zawiya Seydi El Hadji Malick au passage ñu ciy ndokkeel euh, fédération fédération Tijani bi te imam jiite ko ànd ceeg këru diine yi ci États-Unis yëpp Eh, keroog sax tooñ naa ne imam Busiri dafa am jamono rek mu ne nañu wut eh, xalifa bu jigéen mu ne ndax góor ñëpp dañu échoué an ànd ak am dem ci rawda bu sayyidatuna Nafisa sayyidatuna Nafisa bu sayyidna al Xuseyn bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nafisa ci baytam bu rafet boobu masuma gis baytu bu rafete noonu da ko waristi xisaalal mustafa wa ulumahu wa fadlukuma lawla nubuwatu waxida da ko yow yaa donnu yaa jikko yu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam yaa donnu it xeeti xam-xam ya mu amee ko yàlla def ko yootal te yootalul la looloo leen wutale waaye bu dul woon nubuwa gi ngeen di benn ñu dàq ko génne ko Égypte parce que bañkat la woon waaw fu mu dem rek wax fa lu tax ñu génne ko moom imam Buusiri ñun nag côté euh, poésie bi rek presque la ñu xam mais c'était un acteur nit la ku amoon solo imam Buusiri waaye côté biñ ci xamit moo ëppati solo ndax yonent bi lay woy sallallahu alayhi wa te looloo ko soobi ne nag kon nañu insérer euh, jigéen ñi ci biir fédération fexe ba am commission bu nga xam ne ñoom ñoo koy tax parce que bu dee réseauté ñoo ko gën mën ñoo ñoo dàq networking waaw lu ne jigéen ñi ñoo ci mën wax ça il faut l'accepter waaw ñoo ñu mën ci lépp lu ñu bokk it du baax jigéen ñi lu ñu bokk du dem lu ñu bokkut rek du dem <laughs> bari nañ affaire nag waaye lu ñu bokkul du dem lu ñu bokkul du dem sam papa ndeysaan na ko yàlla eh, yokku leer moo daan wax ni eh, mënuñu fi nekk waaye mënuñu fi ñàkk eh, def nañ ci ay waxtaan ci ginnaaw xam nga tey jii la am fukki at ak ñett bi fi jógee fukki at ak ñett le sept deux mille deux mille cinq euh, dangay wax ne yàlla gis nga ni muy boole dafa am jamono dañ ma daan jaawale ak waa kër Cheikh Mohammad Murtada fekk may xale bu tuuti am kër gu ma dem di fa seeti ku feebar ñu foog ne waa ci waa kër Cheikh Mohammad Murtada Mbàkke laa bokk loolu def ci man ma am curiosité pour bëgg a xam Sëriñ Murtada ma ànd doomi borom kër googa mu koy wax Moussa Njaay Moussa euh, ku jege woon Sëriñ Murtada ak waa la moo tax ma xam Sëriñ maam Sëriñ maam Sëriñ dinañ ñëw fii doomi Sëriñ Murtada la Euh, ci relation boobu ma am ak sa suñu góor gu baax ak sëriñ Murtada ci laa xamante ak sëriñ maam sëriñ boobu ñu ngi nekk ay xale yu tuuti am sëriñ billet avion bi mu njëkk a voyagé génn Sénégal doomu sëriñ Murtada laa wax maam sëriñ danay ñëw di dal fii sans laaj leen ko